mbégte kontaan te ci ànd bi ànd ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñ mbégte jëmm seen nopp suñ bànneexu làmmiñ seen lu waral suñ farlu tey nag ñëw fii ci cité police Zac Mbao ci wetu jumaa ji fekk fi koo xam na que dalal nañ ko fi daaw mais daaw ba léegi ñu ngi koy soxlal dalalaat ndax lan li tax muy raar média bi loolu yëpp bëgg nañ xam lan la ñàkk jot la wala tukki la wala lu xew yooyu yëpp dinañ ko ko laaj kooko di kan sëñ Baara sëñ Baara Seck du di doomu cosaanoo fu ñuy wax njollo njollo defe naa ci wetu Jurbel la waaye yooyu yëpp dina leer bu ñu ko dalalee bu baax di leen wax ne gan gi namoon ngeen ko ñëwaat na ci tegtal ngir gën a dundal tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk ngi dakk sëñ Baara looy nuyoo ñiy seetaan LCS ak émission tegtal bi nga xam ne que képp kun jàpp ne man nga faj wala man nga ñaan te yàlla def ci yow dara dinañ jàkkaarloo yow. الحمد لله ko nak dess na la wolu mom duñ jëflante yow day neñu ray salam على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعد أيها المستمعون الكرام نحييكم بتهية الإسلام تهية مباركة طيبة من عند الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكيني سيتان سيتان تي فنك تي أدنى بنين دي سيارة دلين ويتي بعد بنو يالا بولي من جامم أجير من دم يالا نكتين تي نك سين سيخ ما يكون تان باح تي دلسي بنين دلسي وات في ما شاء الله ما لين دي جار دلين أهلا وشهلا دلين تي جام مرحبا بكم kontaan naa ci yéen ci seen ñëwaat ci cité poésie fii Zac Mbao ñu set si ma euh, ma leen di dalal jàmm di leen nuyu di nuyu kilifa ga di nuyu personnel bi nga àndat yépp macha allah euh, di nuyu itam ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo safoo émission bi tegtal macha allah mu nekk émission boo xamante ne bi émission xam-xam la mais émission njariñ la émission faj la te lépp nag day dellu ci ñi nga xamante ñi jariñ nit ñi kon daanaka ñaan gi du gën a bari ci yéen ndax yéen a ñaanal seen bopp yàlla moo ne waa mama yan fa unaas fa yam ku su fil ardi ñuy jariñ nit ñi daal ñooñu maa leen fi yàggal yàlla neen ñooñu maa leen fi yàggal te eh, yéen bokk ngeen ci ñu jariñ yooyu toujours rek wax dëgg yàlla am yaa ngi ci luy jariñ askan wi kon ñu ngi leen ci ñaanal yàlla tawfeex yàlla saxal leen ci yàlla gën a yaatal émission biit ba mu gën a yaatu ba ñépp gën ci jariñu bi hurmatil quran te noonu baat bi nga mujj wax léegi ku nu wóolu duñ la ci tegtal duñ la ci dalal lu am solo la parce que itam nit ñi bu fekkee ne da danga da nga dox seen digganteem ak askan wi li ni nga doxee seen diggante ak askan war na leer waaye war nga ko teg ci xam-xam war nga ko teg ci yàlla war nga ko teg ci njub waaye war nga ko teg ci dëgg fexe loolu moom ñu ngi leen ciy gën a ñaax ngeen gën a ségg di gën a saytu ñi nga xamante ñi ngeen ciy dalal bu baax a baax parce que itam àdduna bi dafa xaw a jaxasoo te maamu ni dañu bëri su ko defee nag lu mu ci doon war na tegu ci xam-xam daal nit ki doo ko génne rawatina média rawatina télé ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax bismillah ahlan wa sahlan marhaban jërëjëf euh, sëñ Baara sekk ci kàddu yu rafet yooyu mais balaa ñuy sori maanaam yaay kan fi nga cosaanoo fi nga jaar ba agsi fii pour koo xam ne que sa moroomum fajkat la te nekk ci yoon wi mu gën a mën a gëm boppam maanaam bañ a xam ne même buy metti dina baax def lu baax dara gënu koo baax maam pour war ne royukaay nga loolu jox ci tegtal foo jàngee ak yooyu. fii fiika seex loolu lu am solo la te it lu may sawar la mooy que ne wax man may kan te alhamdulilah dana tax nit ñi la xamul xam la dina taxin ki la dégg xool di segg yow kii mooy kan Sëriñ Baara benn nit la boo xamante ne bi Sénégal la dëkk région Diourbel dëkk bu ñuy wax Jollo comme noonu nga ko waxee ci tàmbali bi Jollo ma ngi ca euh, commune rurale de Ndoulo la euh, diggante Jollo ak Ndoulo 4 kilomètres la boo génnee Diourbel bala nga àgg Touba foofu ngay jàdde jëm Jollo di aw tund aw wookaan foofu lanu ñu jànge ci benn dëkk bu ñuy wax cekkeen Tijaan falan jange alquran falan jange xam-xam ci walu sharia ndax itam avant lo itam juma ji nga gis ci buntu bi ñoo fay ñoo fay ko man na ne ko samp waaw lu fay xam-xamit ñun lañ koy laaj kon señ baara balay dara xam-xam sharia la dem jange won ba pare waaw xam-xam nak comme alquran suñ borom wax na ne ma farat fil kitab min sayin bayuma ci téré bi dara haka saa yakun moo nekk noonu kon su ko defee loolu moo waral lii dox ba dab ñu mais nag bi ñu jógee rek suñu départ danoo jàngi alxuraan ban fa jógee danoo jàngi xam-xam ban fa jógee it nag dugg nañ ci àll bi ndax fu mel ni Guinée Bissau Gambie ah, Guinée Bissau dëkk bi ñu nekkoon ca ginnaaw Baafata ci Gudur soo fay dem Sali Kaña ngay jaar boo jaar génnee Kolda Sali Kaña génn Sali Kaña dem Baafata dem ci Gudur àll boobu yépp bu fekkee ne garab rek sungu fa ren. fofa ma sha allah. Ah, fofu bu ngi fay dem da nga demoon pour faji ñafa nek ya, wala pour jangi faji pur pour pour dox pour gessu pour xam ci walu garab ak ci walu sunguf ak ci walu reen nah, ma Allah boobu cheikh man nga dox ay kilomètres ci bir yo xamantene ne do gis dekk do gis nit mais ay garab rek ngay gis kon fofu garab yi réeru yu beure beure yu reer fi teewul nak fi amna garab ndax amna yu ñuy soxla duñ sax genn duñ genn fi amna yu ñuy soxla bu ndé ba suñu dekk yi nañ ko fa am waye nak lu ci ëpp nak ci pour nga riis ci walu garab faaw nga dox ci ci àll mais légui ku dem ba ci àll bo xam ne do fa gis nit yow garab ya kessé fa nek té da nga dem pour gëstu ci da nga ñëw di gor xol li ba ñam li lay saf wala da ngay am and ak ku naan la li njariñ la li loraange la ba nga xamal sa bop wala yaa tegtal sa bopp fekk xam nga garab xam nga li fajj xam nga garab garab gi xam gi moy que da ngay xam garab bi lan la ak garab bi la ne mu ni nit dafa dik comme yow maanaam nga ñëwoon ne ma sëñ baara lu ma musal laa bëgg wala lu ma ubbi laa bëgg ma ne la garab sàngam day ubbee mais da ngay da nga da nga koy wut bi sàngam ci waxtu sàngam su ko defee mu léegi nag loolu boo moo lay permettre nga dem ci àll bi xam nga garab googu xam nga bis bi nga koy wut xam nga waxtu nga nit dana dana dem ci garab xamne garab gi lay wut mu gas bu fekkee reen ba la soxla ndax garab ñett la reen bi ak euh, xas bi ak xob bi waaw su ko bu fekke ne ci reen bi nga soxla man ko gas di xaar ba jot ko xamne li reen la di xaar waxtu ba koy dag jot pour nga dag kon garab it fànn boobu daf ci daf ci am solo lool nekkul rek da ngay ñew rek daal dinañ ci garab gi rek daal di dag daal di ki déedéet man na fajj na muy fajj nga xamul ne comme ni gënt di di ko ci waxtu yi ak wax heure bi nga ko def noonu la garab di wecceekoo ci waxtu yi ak ci ak ci heure bi nga ko dog su dee fànn boobu loolu moo nu fa loolu wokkoon na ci li nu fa ak leneen ak yeneen yu gën a fekk loolu itam suñu borom baax nañu ci lenn ci secret alxuraan ndax wax naa léegi ne la alxuraan bàyyiwul dara waaye ci mbóot yi te itam ñun suñu lépp sax base bi alxuraan la garab yooyu day loo xam ne day accompagner daal waaw ginnaaw ba bi nu bi ñu bi ñu jógee foofu dem naan dëkk bu ñuy wax Kaolack ban fa jógee dem nan Bambey Bambey jàng nañ fa oto jàng nañ fa xam ndax daara ja waaw jàng nañ fa oto ndax euh, sama kër maam laa nekkoon fa doon fa doon jànge oto mais teewul daa am na daara mécanique wala chauffeur chauffeur daara ju mag ju fa nekk joo xam ne Kayen daara ja doon fa jàng doon dem nañ ba sax daayira Cheikh Khadim ba fa nekkoon ñu dem ba yor jàngale ma di leen jàngal foofu ci fa jógee naka noonu ñëw nañ Zac Mbao Zac yàgg nañ fi depuis 98 boobu fii àll la boobu fi àll la Zac Mbao mu Kapek boo fa duggoon tey boo laajtee Kër Sëñ Baara du dana yomb. maam siiw nga ci secteur bi yëpp daal ah, fu ah. rek ca raay ba yëpp ne Kër Sëñ Baara ah, foo ne Kër Sëñ dina yomb pour nga ñëw fi parce que bokkoon ñi nga xam ñoo fi jiitu bokkoon nañ ci ñi leen di jàngal alxuraan ak ci leen xamal seen diine ba ci cité bi ñu wax naa léegi ne jumaa ji ban koy door te ña ko jiite woon la di teg ay birig maa fa njëkk jiite ba yàlla dogal tey muy jumaa ñu jël lépp tek ci sama loxo macha allah ñuy sant it ñi nga xamante ne ñoo fi ñoo ñoo ñoo ñoo fi nekk. su ko defee kon sëñ Baara fànn boobu la kii imaam gi fekk na wax naa la loolu yàgg na. imaam gi moom depuis may am 18 ans boobu yàgg yàgg yàgg naa di ko dégg ndax itam gëstu naa ci sama wàllu alquran. gëstu naa ci farata yi ak sunna yi ak musaab yi ba gëstu ci sariya loo xamante ne bi wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan yalla dolil ñuko bu baaxa baax té barkeelal ñuko ak ñi nga xamné ñoo ci bëgg jaar ñu bu baax ma sha allah kon daar jaar bobu daal ci teunk ndax rek a dese ci jaar jaar bi moy bi nga expliquer ba pare dégguma nga né dama ko donn ci sama wajur, dégguma né diw moma don jangal dina dégg nga dégg dëkk loolu bo ñu ci mëna dem. alhamdullilah Cheikh man tam papa fon di fajj tam papa fon di faj. Mhm. demoon na daara. jàng na waaye nekk kon di nekkul loo xamante ni lu ñuy donn nit papam nekk na fajkat mu màgg munta faj nit mu papam nekk na imaam mu màgg nit ki papam nekk na ministre mu mu màgg munta nekk loolu yépp mbir yàlla nee inal fadla bi yadillah yu'ti man yasha samaskan lu ci nit jaaxle ci man lay ñëw te moo ne fekkuma ko ci ñoom ci wàllu xam-xam boobu hmm. kon inal fadara bi yadi laa yuxti man yashaa yàlla mooy baaxee nit ki te gis nga seex nit kiy door li mu bëgg ak li mu gëm su ca xuusee rek ñime ca hmm. farlu ca yàlla jàppale ko tam al asamatul abd jaam bi day bëgg day day day day dogu maanaam day day bëgg dara dogu ci mbir hmm. bëgg ni gopte ne man kat lii mooy sama objectif lii laa bëgg moom laa bu dee ci xam-xam xam-xam bu mu mën doon nit ki papam nekk na docteur mu màgg nekku docteur mun tafa loolu lépp xam-xam looy jàngal rek mm-hmm. xam-xam moom lenn li man may dégg ñu naan lii dama ko donn ci lii dama ko donn ci lii man sama maam ji jur sama papa am na lu mu doon noonu muy jigéen joo xam jigéen ju nekk en état la doonte benn weer la am na lum mu lay takkal ci kàttanu yàlla mba xam loola danga ko yónni ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii am na ay doom ñu bari kenn doonu ko ci su ko kon fan boobu lu man xam-xam lima gem gëm mooy koy sàkku sëñ Tuubaa waxee ca téere ba euh, xam-xam dal jang jàng da ngay jàng wala fi ma afisa wa man taraka takraara la budda an yansha kon ki nekrek, sakti rek sax ci jàppal ne man jàpp naa ne kooku mooy boroom xam-xam bi incha bar jërëjëf sëñ Bara Seck ci jere yooyu euh, jërë ngeen jëf mbokk yi Tektal defena introduction bi leer na xam ngeen ki ngeen ko seqal kon du du cuune te tamit du koo xam ne que dañ ko indi rek ci yaama neex mais buñ fi ñëwee war nañ fee ñëw buñ fi ñëwul war nañ fi ñëw kon war nañ fee ñëw te ñëw nañ fi indil nañ leen ko li des na ngeen fekk ko fi dis ko seen soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëlewul dara bindal euh, moo ngi ci cité police Zac Mbao sëñ Baara Seck bind bindal maire bi foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yi neexul ñuy wax ci saal bi na

Serigne Bara Seck lépp ko ne nga fekk ko fi dis ko sa soxla lu mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëliwul dara te mën na lépp soxorul iñaanul sëñ Bara euh, lu soxal Sénégal yi maanaam asken wi li leen gën a soxal balaa daray xew moom mooy amay xewal am xaalis ubbeeku waaw ubbeeku ubbeeku di dem maanaam nga xam ne que nit ki li muy fayeeku sax lu ko soxla bu baax day am leneen lu muy tal di dem lan mooy ubbi nit ndax na ngay ubbee nit ak nit ki lan lay def ba tëju maanaam luy tëj nit ba pare balaa ñu ubbeeku. alhamdulilah seex dinañ sawar ci dugg foofu euh, liy tëj nit njëkk nit ki di tijjeeku. gis nga seex nit ki li koy tëj lenn lu bët mën a tege la. ñaar leneen lu lu bët mënta gis la. yàlla bi mu bindee ba pare daf ñoo booleek ay mbir yoo xamante ne bi daf leen a dooleel. bi jiitu ci liy tëj nit. danaan lii rab la walla cat la walla seytaane la walla def-def la wala ngelaw la gis nga jafe-jafe bu nit am ci àdduna seex soo ko seggee soo ko seetee génnul juróomi mbir yi juróomi mbir yi rekk mooy yi nga xamante ne bi ci la jafe-jafe tënku su ko defee nag pour nga génn ci walla nga xam nit ki da ngay daal di dellu ci mbir yooyu xam na kii kat rab moo ko jàpp rab dana jàpp nit ba tëj ko nit ku du am ni war a amee wala du wér ni mu war a wére wala li muy am du fekkante du toog lu mu dem loolu tëju la cat muy bët ak làmmeñ te kat boo demee sooratu jinni sax am na ci am na ci alxuraan nga na ko yàlla leerale waaw xul ooyee ilayya noo sama nafarun minal jinn ayo la la ca des muy cat tet mooy bët ak làmmiñ bët yonent bi saa sam neenu al aynu xaqun ba dëgg la am na bët yooyu buñ gis buñ xamee fa nga jëm doo àgg te nu al balaa kullal balaa fii lisaan làmmiñ lépp lu mën a gàllankoor doomu aadama fii lisaani mi ngi ci làmmiñ doomu aadama xam ne kon làmmiñ yàlla moo ko bind dooleel ko ba noppi def ca muy muy yàq ak defar am na làmmiñ yooyu tey seex boo sol lu rafet moo xam dàll la wala yére ñu ne ñu tudd ko ne rafet na rek boo do génnee léegi fakkaftalu dàll wa dagg wala dara lonk la yére ba xottee ko day am kooku ci wàllu cat koon yàlla moo ko doole moo ne loolu lun mën a gis la wax naa la léegi nii lun mën a gis leneen li ci des mooy def def ki jóg rek pour gàllankoor nit gis naa seex di am nangam rek seex daal naa dagg ay tànkam naa naa ko def lu ko gàllankoor loo xamante ne bii rek li muy am dootu ko am su ko defee ñu daal di jóg gis nga def def seex mën na jàpp ni ki nit ki dara du dara du ko metti mais du am dara wala lu bu amoon million gi la muy la muy am du toog du ci loxo nit du ma bitim réew mi ngay nee na ma li may am sama moroom yi nga xamante ne ñoo fi nekk boo xaajoon ñetti xaaj benn xaaj ba amuñu ko te ñoom danan danan dana danan ci dund fay ci yónnee ci yónnee ci senegal lu ñu leen dencal man nag bu ma fayee ko balay mat fukki fan ak juróom dootuma yoon dara te mu ne ma. est-ce que waaw mooy mooy làmmiñ mën na laa jàpp wala def def mën na laa jàpp wala cat wala rab ba ba ba ba sa dara du taxaw di mm-hmm. su ko defee nag euh, loolu mooy waral ne nit ki du kii nit ki du du mën a du mën a dajale dara. mën na lay waaw mën na lay yóbbee waaw mën na lay yóbbee ba ngay yàq mën na lay yóbbee ba ngay am jafe-jafe. mën na la yóbbe ba yow loo am li fekk demul do am jam am na ñooñu li ñu yor ci seen poste li fekk jeexul du am jam moom kay nag na jeex rek ñu doog a féex waaw ñu wooyu mbay keneen koo xam ne danaan ma damay yor 1000 euros mais su ma demee fanuy carte su ma su ma gañewaatee ñaari ñaari 1000 euros muy 3000 euros li fekk jeexul mu ne loolu sax du tax ma dem kon jëmmi carte gi yóbbu ko mais jombul ñu yàq ko ca wala ñu def def indi ko ca wala rab jàpp ko xeetal ko ca wala cat topp ko ba loola di loola di mbiram soo defee boobaa loola jafe-jafe lay daal. yëpp xeetu tëju la. yëpp xeetu tëju la mais boo dee am million te million bi du fanaan ci yow kay sincère tëju magut loolu. te mënul day tëj nit wala. sobe ci laa jam sobe day tëj nit mooy mooy wàllu seytaane. seytaane moom lay jàpp ba ngay ba ngay ba ngay dund ci sobe. am na ñoo xamante ne bi da am da ngay am am da ngay gis koo xamante ne bii du am soxna mais du xalaata mooy du xalaata jaar fu ñuy mooy da gis koo xamante ne bi dana am juróom wala moom ñeent mais téewul lan ko ca xiirtal maanaam kooko loolu mën na ko tëj ba du am na mu war a amee du wér na mu war a wére la muy am du fekkante kon dara génn ci lii lii ma la wax rab cat seytaane def def ngelaw juróom yi amul lu ko génn ci mbir yooyu nga xamante ne bi moo mën a. ay gaaf nag foofu lay fan lay dugg moom ay gaaf ay gaaf ci foofu lay dugg wala bokkul foofu. gaafal ci dara. mais kooku cat moo ko topp rek. cat moo ko topp rek su defee moom ñu ne kii kat dañ ko gaafal ci dara. comme fii Sénégal da ngay jékki-jékki gis am sant yoo xam ka dañ koy dëkkale fenn. comme ñu ne famille bii. bu ko leen gisee dañuy umaate. comprendre wax ñu ne famille bee dañuy ubbiwaate. famille bee dañ lay xaaj maam yooyu ñu dugal ci bopp nit ñi bu pare bëggoon xam am yooyu taxawul. loolu lépp it seex euh, du man du ma ko gëm cent pour cent du ma ko gëm waaye du tee damay moytu suñu Fallou Mbacke bi naan bu fekkee ne xale dañoo rëdd aw rëdd ne rëdd wi ko jéggi dee nee na teggil rek ndax li ko làmmeñ tudd teggi rek te ne ah, waxuñu dëgg de du dëgg yow ak sa ngëm man la tàqalee sa waaye itam nag moytuwaaleel mm-hmm. moytuwaal da ngay dem ci téere ñu ne la lii du tereg araamal mais tereg moytandiku la mm-hmm. comme ñu ne la ñetti fan dee su ko fóot ak ñetti fan àllarba dee su ko tukkeeg ñu demee noonu ñu ne la lii du tere du tereg araamal mais tereg moytandiku la xam nga waaw kay bu fekkee ne nit dafa def la ne lii de ku ko def da nga am nangam bul bul jëm jël loola def ko yàlla mais nag bàyyiwaaleel xel la maanaam teggi ko rek mais man damay gis kilifa ay kilifa ah, yoo xam ne que buñ xëyee ubbi seen bunt néeg gis góor dañuy tëjar il faut balaa ñu li ñu bëgg moo nañ njëkk a gis jigéen ba pare xam loolu bu dee kilifa koy def yow loolu looy def. waaw loolu seex li euh, ma jàppee yooyu yëpp euh, aada ju ju ju yàgg la ci ci ci doomu aadama yi mais loolu nekkul loo xamante ne bii lu wér la comme li ma la ci wax rek mooy mooy loolu te am loolu nag nit ki moo koy sarse ci boppam rek. am gëm-gëm boobu ak yàqin boobu ne lii moo war a am kon lii laa war a def kon bu defee lii du am lii di déedéet loolu loolu wa man yatawakkal Allaahi fa waas bi nit ki day wakkiitu day jox mbir mbiram yàlla day jox mbiram yàlla teewul nag ñi ngay dundal nga bàyyi leen xel bàyyi leen xel mooy di demee di ci demee sa xel xam nga se xelaat dafa am solo xelaat dafa am solo bu ko defee nit ki day xelaat ci mbiram day xelaat ci mbir yi nga xam moom lay dund yàlla sa wàcce alxuraan di ci digle wala mu cay tere ñaare boo xoolee da nga naan danaan in kuntum taaxiloon bu fekkee xelu ngeen mooy ngeen xelaat ci rek mooy loolu yàlla digal après loolu nga xelaat ci nag lii lan moo tax yàlla digle ko lii lan moo tax yàlla def ko def ko nga boo koy jëf nga am ci ne ah waaw kay kon que lii dama ci yaakaar nangam ak nangam ak nangam kon boo koy danga koy def ak fierté da koy def ak bëgg danga koy def ak xel ak xol. da ngay gis sax kii euh, boutique am nañu bu ñu ubbi boutique ndox ba pare. yooyu tamit njariñ la wala. waaw mën nañ la njariñ la mën nañ la ju njariñ soo gisee léeg-léeg nga gis euh, comme li nit di dem ñu koy wisal ndox wala njëkk a ubbi teg ndox ak lu demee noonu loolu ay mbir la yoo xamante ne bi mbir lu mbir yu yàgg la rek. mbir yu yàgg la yo xamante dañu japp ne li xel nangu rek manam xel mo meuna ne nit moy xel moy nit comme limu japp ne ah li kat lu sedd la te ndox mu ñuul la lu bax la rafet la jombut su ma ko wesalee fii wala jombut mako ko njëkkee fi suñu borom dana seddal fofu suñu borom dana jammal fofu mo geeyon nga xey rek teub sa poobar di di fa wis xel xel ci xel xel nangul loolu kon bu fekkee lii xel la kon da jàpp ne lii suñ boroom dinañ ko seddal guy waaw. jërëjëf sëñ Bara kon defe naa tëju moom leer na. ubbeeku bi la nu ubbeeku itam dañuy dellu ci mbir yooyu ki nga xamante ne bi ñëw na ñu xool ni ah kii kat rab moo ko ca te bañ ko def itam ni nga xamante ne bi sëriñ si léegi si moom lañ koy def. xalaat rek daan ne nit ki kon lii moo la war a tëj wala lii moo la war a def déedéet mbir da koy nit bu fekkee daf la doyloo ba ñëw ne la xoolal dalay jar nga boo dee listixaar nga defal ko listixaar boo dee def leneen leneen loola ngay def nga defal ko ca man du ma du ma du ma du ma du ma contre lenn du ma weddi lenn waaye nag am naa am naa gëm-gëm li ma gëm muy alxuraan ak lim digle ak condition yi mu teg keneen bu def sa leneen nag moom sa mbir la mais man sama mbir mooy alxuraan afiqi kitaaballah wal mustafa nabi man daal sañ naa ne sama àndandoo alxuraan la su ko defee nag comme ni nga xamee nit ki ñëw na nga yonte bi eh, digle listixaar nga xool nit ki la nga xamante moo ko tëj bu fekkee lu taxaw ci rab la wala cat la wala seytaane wala def def wala ngelaw lii moo ko tëj nga jaar ca loolu defal ko lu ko tijji ci alxuraan su boobaa loolu ma dama ciy d'accord Cheikh dinaa la jox ay aaya yoo xam ne ci alxuraan aaya yu pour ubbi ubbi gis nga waaw dama danaa ko may may ko ñëpp kuy seetaan ci tëju rek te it euh, yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne euh, li kulli say in xalbun wa xalbul quraan yaasin loo gis am na xol mais xolu alxuraan mooy yaasin yaasin wax na ne boo xëyee jàng ko juróom-ñaari yoon suñu borom mën na la tijji jëlal rek yow al jëlal yaasin surtout yaasin nga bind ko 82 aaya la soo ko defee aaya boo bind rek da ngay bind rabbana aftah baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul faatihin kooku aaya boobu lépp ubbeeku la ci ubbeeku lay wax boo noppee nga teg ca nasrun min allahi wa fathun xarib wa basri mumin nasru ndimbal minallaahi lu jóge ci yàlla wa fathun ak a ubbitu xaribun gu jege wa basri muminin mbégte moo cee topp moy ki gem mais kan moo koy am moy ki gem alcorane ki gëm yàlla ya bismillahi ya fatnaxa basi mu ñaari aay yooyu moom nga cey toftale ay bu bind rek bind ñaari aay yooyu gis nga su maté da ngay jël wutal wutal sa juroom ñaar ay sondel talal yépp jël safar bi sotti ci bir baye muy tak ba tak ba fay ci bir gis nga su ko nit du ko sango juroom ñaari fan te yalla ubbu ko ci kat yalla ak baax ñi seetaan jël ngeen léegi nak foofu fi problème bi nek nak moy yasin du saaru ndaw oh, yaasin dafa gudd bind ko yombul mokkal ko yombul jàng ko yombul surtout ko mënul jàng léegi ku mel muy def dañ koy defal wala boobaa mu sàkku ji ko rek ko man parce que itam loo mënul am na ku ko man tey li ni ni jàng ko jafee am na ku ko mën a jàng ci juróomi minute ni bind ko jafee lool am na ku ko mën a bind ci fukki minute du dee du àgg waxtu man maa ngi ngay xaafisul Quraan yoo xamante ne bii soo ne leen bindal ma yaasin léegi te ñu ñëw ne la mat na ak lu muy ànd loolu lépp mbiruma ka ci yëngul li ku la xisbin bi maa la day xam farihoon su ko defee fànn boobu loolu la jërëjëf sëñ Bara Seck ci li ngay baaxee askan wi yu mel noonu lii laay bëgg di wax loo xam ne que nit ki sans mu jóg fa mu toog mën na toog fi mu toog bu sawaree mu defal ko boppam nga xam ne que sëriñ bi nekku fi di leen wax rek ñëw leen ma defal leen lii indil na la njëriñ tegtal na la fan ngay jaar boo fa mënee jaar nga jaar fa boo fa mënul jaar nga nga ñëw ci boppam nga xool lu mu la ciy jàppale euh, beneen bu niroog ubbeeku ba léegi ak tëju mooy koo xam ne que mooy cat ku cat ku cat jàppul da ngay dem ku cat jàpp man nga rester te cat ñenn ñi mucc ci yombul cat noo koy lijjante moom. baarakallah fi gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee ne lii ma la wax leen juróom yi bu ci nekk rek jiim nañ koo boole ak moom rab cat seytaane def def ngelaw lii leen lu ci nekk rek jiim nañ koo fexe pour boole ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci gën a siiw mooy cat bi ak def-def bi cat bi ak def-def bi lenn lu ci nekk rek fexe nan pour pour teg ko ko moom yonent bi sax pour gàllankoor ko teg nañ ko sax boo gàllankoor ko yàlla ñëw teggi ko ndax boo demee ci mu xaw sa satee muy falaxi ak naasi ban ko liggéeyee def ko fukki fas-fas ak benn gis nga na mu wàcce na ko yàlla ñu xam naa loolu mag ca kanam daan ci ñëw gis nga na mu ko def yàlla daa yàlla daat koy dindi te changé bu fekkee ne cat la yàlla moom mujj wax ko ne ko wallahu yaxsimuka mina naas yow Muhammad demal sa yàlla moo lay musal ci nit ñi mais nit ñi lan lay mus ci ñoom mooy seeni bët seeni làmmiñ mun la gisul dégguñu la mun la mën a lor mais li fekk ñi ngi lay gis di la teg bët di di la tudd pour nga mucc ci ñoom yàlla rek moo la nit bu ma la gisee doomu aadama lu mu bon bon bët bi ak làmmiñ bi mooy loraate parce que tamit ñemewul jëlee kurban ji dooraate moom ah, de dootu ko def mais nag mën na xool xool boo xamante ne bii ah alxay no àqun gars bii wala làmmiñam wii su ko defee moo taxoon ñu ciy mosuloo. bët ak làmmiñ ñi ngi yéenee lu bon est-ce que bu yéenee lu baax maanaam ii diw de am na xaalis maanaam bu ci jubloo lu baax day am wala bu ko waxee rek problème am na. waaw moog nag nag na nga xamante ne bii secret ba ca yàlla dëxañ ca làmmiñ wala bët bëri parce que am na ci bët yoo xamante ne bi wax naa la bët yu lewet lan mën nañ la xool sax yu muy yokkute ci yow mais am na ci bët yooyu bët yu diis lan mën nañ la xool gàllankoor daal di dugg kon bu mu ci doon rek. la muy faj bon judd bon dina jàpp ci tele wala ak lamuñu bon comme seedaan kenn koo xam télé nga koy seedaan wax na yii kii nangam cat boobu day dugg wala télé kii wax ci télé kay moom la ñuy dégg moom la ñuy dégg moom la ñuy dégg moom la ñuy gis kooku moom la bu dee image itam maanaam téléphone tey boo yoroon téléphone nekk nekk nekk nekk Europe mais yi di wax fii ma def ko pël ñëpp di dégg mais seexay wax rek seexay war te yow yaa nga fu sori te ci li ngay wax nekk te ci mais fi ngay waxee ñu xam la ngay dund xam li ngay def kooku moo gën a moo gën a garaaw sax télé ah su defee kon lu secret alxuraan nit na la nekk fii. ñaata fan nga àppal ko ko carrément yow. waaw seex ñu du ñu àppal ndax itam alxasam wax naa la léegi ne alxasamatu lil abdi wal xudratullah dafa am ñoo xamante ne man léeg-léeg nga dal leen sax ci tegtal damay tiit te la ñuy wax mooy keneen ne mën naa nangam lii ñett fan laa koy din lii ñetti fan déedéet. ñun ay jullit lan li nu war mooy ñaan léegi nag nangu bi yàlla la. mais est loolu du doon wóolu boppam naan nit ki wóolu boppam carrément. xam ne li ko yàlla may. kenn mënu fee wóolu boppam ba gën a wóor alxuraan kenn mënu fee am lu may sëñ Fall da doon wax naan baatin ah, sëñ Fall da doon wax naan baatin. dangay def muut wala mu ne mott bu fekkee yàlla daf la may ci benn tur wedduma ku nekk yàlla lay may benn tur mag ñi benn baat lan doon jël benn tur yàlla di ca fal di ca folli. jaamu turu yàlla boobu tarbiyoo ko ba am ca lan ca am mais nag na fekk nit ki dal gis nga ana anaa lay salahu loolu benn woykat arab moo ko wax nee na kuy fëgg dënam naan man a man a man a wallaahi kooku du waaj ki mu doon mu ngi mel ni rek jox naa la masalan ñaari bërigo boo xamante ne bii da nga ci def ay xeer yu loxo loxo xeer rek bii nga du koy xeer ba mu fees nga teg ko ci mbattal di bëri bu ciy yëngutu non bii da ko yëpp ay xeer la mais bii da nga ko duy ba mu fees ba mu forcé ko tëj ko bii nag nga def ci loxo xeer rek tëj ko bàyyi noonu ci battal bi dara moom danaan teg <laughs> waaw jeex na bi dara nag moom kenn du dégg na su ko defee nag loolu la su ko defee alxuraan itam noonu la secret noonu la bañ nga xam ba ne asraar asraar ci dé ci baat bi ci déggin mooy secret secret nag nekkul lu ñuy siiwal nekkul lu ñuy weer yaa ngi dégg am na ci loo xamante ne tey du ma am na ci loolu loo xam ne fii doo ko filmer doo ko dunte wax am na ci loo xamante ni doo ca wax su ko defee kon am na ci loo xamante ne bi danañ ko mën a gis danañ ko mën a teg tegtal ndax jamono moo toll foofu. waaw foofu laa gënoon bëgg ñëw sax maanaam léeg-léeg da ngay dégg ñu naan ay sëriñu dakaar ay ñi génn ci télé yi moom mooy loolu xam nga léegi dama bëgg kenn ku ne nga leeral ba xam génn télé araam na wala araamul génn ba xam sëriñ bu ñi nekk àll ba ñooy ñan da ngay dégg ñoo ñu aay ñaa nga àll ba de duñ génn. déedéet àll ba ña fa nekk ñoo nekk fii man wax naa la léegi man jool dëkkuma Dakar jool laa dëkk. Mm-hmm. fala sama daara ne fala fala nekk fala fala dëkk. donc kon loolu loolu leer la. Mm-hmm. ndakaaru eh, tool laa ko def tool la ci man fi ñëw bay si rek. su am lu ci war a leer mooy nit ku war a jariñe mm-hmm. waroo nëbbutu. ku war a ku soxla ku la jariñit it waroo nëbbutu. ñaar yooyu yëpp dafa laaj feeñ. gis nga màkk bu ñëwee ñaata tele ñooy wax ci màkk. màggal tubaa bu ñëwee ñaata télé ñooy wax ci màggal Touba mais loolu bu bonoon duñ ko publicité noonu tubaa siiw na ba pare. màggal mm-hmm. gi siiw na ba pare mais teewul dañ koy génne ci télé pour que mais pour dim as jamono moo toll foofu. Mm-hmm. waaw li kulli samaanin maa yu maa yu la imuhu jamono ñu nekk dafa am lu méngool la méngoog loolu nag da ngay da kaab moo ko ca téere ba di muxtaaru adab nee na jamono ju nekk dafa am lu méngoo mm-hmm. la mu méngoo nag wuux ca wax ca loola wala def ca loola loolu day daal di nekk farata. ah comme bu njëkk ni doon am coono yi doon am mm-hmm. amatul ñu naan benn paa bu mën a faj nangam ne paa bi boo ñëwee ma nga ca àllub saalum ba boo demee nangam muy tegtal muy metti nga xam nit ki day laajte. ba mu àllub saalum ba àllub Casamance ba ay nit dañ fay jóge di ñëw fii. mi noonu waaw. àllub ba moo xam àllub Kajoor ba ay nit dañ fay jóge di ñëw fii. yaa ngi dégg. waaw mm-hmm. barki démb bu fii nga toog la benn soxna ba ma nga dëkk ba Bignona ca ginnaaw bi jëkkul sax biir Bignona jóge fa di ñëw ba fii ñëwal fi doomam bi nekk ba France su ak yeneen ak yeneen kon nga gis ne kon loolu yëpp ñàkk xam la. ñàkk ay wax la yu ñu dugal ci bopp nit ñi daal mais la. moo xam nit ñi dañuy dañuy wax xam nga nit ñi li man daal li am solo si sëriñ. ka ne Casamance ka ne Bawol ka ne Dakar ku man doon looy def nga teg ko ci xam-xam teg ko ci teg ko ci xam-xam ko ci dëgg teg ko ci it lu leer loo xamante ne bii ña ngay waxal borom xel ya ngay waxal parce que man bu may wax borom xel yi laay waxal. parce que itam nekkul suñ baara mooy taxaw rek. mais fii dafa mel dëkk bi dëkk bi ñu nekk nii ñi fi maanaam ñi ñàkk yeewoo fi ëpp de maanaam ñi ñi dul wéyee xel. am na fi mais nag am na ñu am xel. am na am xel. ne at benn waaye woon na ma bërki dem mu euh, euh, maanaam fële yoof ne ma dama fiy ñëw samedi mu ne ma waaye dama dégg dama seetaan sa waxtaan bu baax tegtal ci laa ko doon seetaane. Mhm. dama dugg ci internet bi xool ko waaye dama ñu bëri. seetaanal mais du may seetaan damay rom mu ne ma bëri nañu may seetaan ci télé bi suñu ñëwee sax dama mu ne ma damay tiit ba damay damay damay sappe may bàyyi mu jàll mais am na ñoo xamante ne mën naa teg dig leen parce que ñooñu borom xel la ñu wax xam nga fii moom boo heure boo waxee am ñu ñëw waaw mais nag la leen di téye kay mm-hmm. la leen di téye yaa koy loolu mooy jërëjëf sëñ Bara Seck ñu ñëwaat ci beneen mbir boo xam ne que euh, mu sonal na nit ñi wàllum rab rab noo koy lijjantee barakallahu fik rab ah. comme ni ma wax léegi comme lu ñëw na ci alquran mhm. kon lu ñuy mën a faj la mën a saafara ci diir bu gaaw wala bu yàgg yàlla léegi <laughs> seex waaw kay diir bu diir bu yàgg diir bu yeex na mu duggee ci nit ki la rek seex munoo rab topp la fukki at nga dikk ma la dama la koy fajal ci semaine wala weer loolu yenawul maanaa mhm. rab ni mu duggee ci nit ki noonu la ko nit ki di génnee ci barke alquran ci kaw nag mu teg ko ci xam-xam parce que wax naa la léegi ne la rab ki ko am faw ñu bindal ko mu takk faw ñu jox ko mu naan faw ñu jox ko mu sang toog it di ko ñaanal parce que ñett mooy ànd ci ci mbir moomu mm-hmm. yeneen mbir yi sax ñett yooyu moo ciy ànd muy mi ngi mel ni plante fii me ndox muy toog ñaanal yàlla génne loola sarax nga génne ko yii ci kàttanu yàlla ma nattal li ma loxo wax rek. plante ak fumier ak ndox lan moo ci war a manqué euh, euh, euh, plante ba du plante ba du dox. jëmbat garab. Mm-hmm. am te fumier ba pare te arrosé woo ko du dox. yooyu yëpp day ñëw daal kon. kon kon boo mais boo amee fumier am ndox mooy toog ñaanal yàlla ki ngay ki ñëw ci yow. ak bind jox ko mu sangoo ñaar ak digal ko sarax mu génne sarax boobu. Mm-hmm. loolu lu ci nekk rek nit mën nga ko defal nit rek. la ko topp bàyyi ko muy rab muy cat muy seytaane muy def def muy ngelaw jërëjëf sëñ baara sekk ñu ñëw ci beneen da ngay wax ne yow ku bëgg jëkkër danga ay ci lijjanti lu mel noonu ak ku bëgg jabar mhm. ma la ci ma ci dolli jabar yomb na mhm. am ko mhm. jëkkër yomb na am ko waaye bu baax bi mooy problème waaka sa yakon nekkuñu sax nekkuñu sax gaaw ci waaye dañ ci ñaan yàlla seex amul lool amul luñ la mën a wax ne la gaaw nañ ci def loolu déedéet mais mais amul lu mun ta gaaw ñaan ci yàlla dégg dégg nga dégg nga fi dégg naa fi ngay waxee amul loo xamante ne bi dana koy def pour gaaw ci ne lii dana la koy defal rapidement déedéet mhm. xanaa jox la gaaw jox la leen lay jox te am te gaaw am ci yàqin mais gaaw am nga moom loolu da koy bàyyi yàlla da nga koy bàyyi yàlla waaw kay su ko defee nag ki nga xamante ne bi moo am moo bëgg borom kër bu baax mais kon boo jël xaalis bi tam da nga ci yàq na boo jox déedéet déedéet ak ci ak ci condition. Ah, ah. xam nga déggoo fi ma la li xam nga daf ci am loo xamante ne borom xel moo koy dégg. Mm-hmm. daf ci am loo xamante ne bii nekk kuy xalaat muy dégg fi sëñ baa lay wax nekkul mm-hmm. ñëpp man soxlawuma euh, quantité bi mm-hmm. qualité yi laa soxla qualité bi nga xamante ne bii ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo ñuy ñëw ci man nekk ay qualité nekk ay borom xel. parce que borom xel yi lay wax kay waaw kay. kenn bañ a wàcc waaw kay su ko defee bu boobaa rek. Mm-hmm. lañ bëgg doon koy am moo ne bu léegi nii bu fekkoon ne. Euh, foo ubbee ligne la wala ma ñëw plateau toog. non dama lay jël direct. ok ah, nit dana <laughs> waaw nit dana woote ba nga da nga nen waaw baa baara nekkate moom waaye fekk na. loolu lépp lu yàlla jaar la ci man la. xam nga ku am yàlla moo la jox. Mhm. mais du wàcc di ko joxe da koy am fu mu ko jaarale. dafa am fu mu ko jaarale fu mu ko jaarale nag kooku bu bëggee gis ne man maa yàlla. yàlla wàcc ko foofu di ko jaarale fen léegi ñaari ñooñu ku bëgg loolu moom noo koy lijjantile ku bëgg jabar bu baax. ak ku bëgg jëkkër bu baax dañ koy jox. mag ñi dan wala sangu wala ak ça dan daan def tilimoon dafa am loo xamante ne bii euh, xobu pafton ci leen koy bind. benn saar la boo xamante ne bii da ko ci bind boo ko bindee juróom-ñaari xobi pafton weer ko ba mu wow nga dëbb ko mu nekk sunguf loolu ko ñoom ñaar ñooñu ñëpp loolu seen garab la mag ñi nan naa ñoo seen ay mbuus nga ñëw ñu cof ci sunguf si rek jox la nga ne fekk ne sunguf la mais fekk sunguf sa base ba alquran la ndax aw xob la wun bindaay alquran ba mu fees ñu teg ko ba mu ñu dëbb ko ba mu mokk loolu alquran ñu cof ko jox la ko nga sang ko rek ubbee ko bayre ñëw borom kër ñëw wala soxna ñëw bu fekkee moom lu bëri jërëjëf sëñ Bara Seck jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission tegtal waxtaan bi neex

cinquante cinquante de 52 52 Skype nga def sëñ Bara Seck lépp kole nga fekk ko fii ci Zac Mbao cité police nga diis ko su soxla lu mu mën mu def ko leneen li ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëlewul dara te mën na lépp. jërëjëf euh, sëñ Bara Seck ñu ñëw ci beneen question boo xam ne que dañuy nuroo te wuute mooy ku bëgg liggéey ak kun liggéey. barakallah fika seex kin liggéey. day dellu ci alxuraan ak mbiri alxuraan. Mm-hmm. dafa am ñett yoo xamante ne bii. Eh, dana am juróom yoo xamante ne bi dinaa la ko may pour ki bëgg a fegu ci liggéey wala ki nga xamante ne bi ki liggéey la ki bëgg liggéey nag moom day dellu ci alxuraan de xool li ko tëj ñu tëj ko mhm. waaw kay jeex na ki nga xamante ne dañ ko liggéey ba mënut am liggéey day fexe la nekk lañ ko liggéey dañ rek su dañee rek ci kàttanu yàlla moom su ja dollee ubbee yàlla may ko liggéey waaw ci ba léegi li matadoor wax foofu lay wax léeg-léeg seen ko amul liggéey ba pare ñu ne mën a den ko liggéey comme ni mu ko waxee ñu ñu koy saraxe looloo xam ne ko sàccil rek moo fi sa <laughs> waaw su boobaa itam gis nga sarax bu bun la digal bu nee la saraxel nag amoo nag am na lu ko mën am na lu ko mën a remplacer mhm. waaw bu nee la saraxel xar amoo xar am na lu oyof lu ko mën a remplacer léegi lu mën a remplacer nag lan la waaw buñ ca àggee ñu xool rawaanu nit ki ak fu mu toll ak nit ki lan la war a def ñu def loo ko loola waaye loola nekkul lu mën a wax ci teleen tëb rek ne bu jógee ca nag lii lay daan déedéet mais am na ki nga xamante ne bii nag lan ko saraxeloo amu ko bu nu joxee turam ak santam buñ ko peesee ne ko saraxel nangam loolu dana ko attan incha allah. jërëjëf sëñ Baara Seck wàllu muslaay nag kaaraange taxaw fu wóor boo xam ne que moom su ay day mel ne kenn mënul ci yow dara ginnaaw yàlla. seex wutal wutal juróom-ñaari nakki dëj. ñaari nakki dëj. nakki jurom ñaari garab yu am ay dekk waaw nga indi ma bo ñe dinaa la ci bolé jurom ñaari sa dama la indil sumpu indil la dem uh-huh. indil la ak barat uh-huh. ñaar yooyu am nay dëkk moom ànd taan kan kad nem na nem na seng seng waaw yooyu am nay dekk suru hmm bari na ak garga mboos <laughs> jeex na jurom fexé bam ci jurom ñaar rek waaw ñu indil la jurom ñaari nak ki dëkk hmm. ak jurom ñaari soufi seuk jurom ñaari soufi seuk yu bokku la yar armeel boo ñëwee nan la ca defal loo am na ay alxuraan yu ñu naan boo ko sangu juróom-ñaari yoon lu la nit def mu dellu ci moom léegi ku demoon sëg yi nga mu dem uh, am juróom am sëg ah. ba mu nekk uh-huh. beneen sëg ba fa nekk sëgu na ko remplacer muy juróom-ñaar am ay sëg rek ay sëg rek ay fu néew nekk rek fu néew tëdd rek mm-hmm. waaw juróom-ñaari uh, suufi armal rek nga def ko noonu baax na dama koy indi rek uh-huh. ma def boole ca lan cay boole juróom-ñaari saar la wala yi aaya ñu bind ku lan cey bind jox la ko nga sangu boole ca lan cee boole nga sangu ko juróom-ñaari fan. Mm-hmm. ku la liggéey mu dellu ci moom. mu dellu ci moom. incha allah kenn du la laal kay. kenn du la laal sax incha allah. jërëjëf euh, sëñ Baara Seck foofu leer na léegi ñëwal ci ci wàllum glaucome. waaw waaw wàllu kom dafa yaatu. Mm-hmm. bi tension waral ak bi nga xamante ne bi tension waralu ko. daf ci am boo xamante ne bi seex moom mutation waral képp koo xamante ne la mën na koo faj itam te waxul na dama koy dànk rek mhm. da cay wax la moom rek waaye nag ki feebare feebar bët moo xam ne daf ko dab kooku euh, xam daf ko dab kooku moom fa kasaf na an ka xitaak fa basarka yow mu adit incha allah am na loolu buñ ko booleeg moom boole ko jëfandiku ca incha allahu yàlla mën na koo defal sifaaxu bu baax ci wàllu bët yooyu incha allah ci wàllu bët wàllum tukki nag tukki maanaam ak ku tukki nekk fa bëgg kii. xam nga yonent yàlla Souleymane yàlla daf ko mayoon muy jaar ci ngelaw li di tukki fu mu bëgg a dem dem fa. Mhm. wa xusira li Souleymane junuuduhu minal jinni wal insi wa tayri fa hum yusahuun ku aay boobu ku bëgg a tukki am na saaru muy àndal nag am na it noo koy jëfandikoo ku ku bëgg tukki soo ko jëfandikoo rek dem yonent yàlla Souleymane fu xel ma ne woon rek léegi tey bu la bu noppee jëmm ji ne. bëgg a ñibbisi nag ku ñibbisi të. ku ñibbisi të itam dañuy dolli ci wa xusira Souleymane rek parce que dem la bëgg rek su ko defee dañu dal la wax xasra Suleymaan junnoon minal jinni wal insi rek léegi nag koo xam nag ma nga fa ay këyit mooy problème waaw kooku su boobaa nag day toll ci euh, loox ki bëgg këyit foofa da ca dëkk ba bëgg këyit day peso xam poids am wut 14 mètres per cale boole ca sarax la boo xamante ne yow bu ñu ko defee ànd ak war a fa anaaxuma kanaal yéen jox ko mu jëfandikoo diir bu gàtt dana la wone la seex mbir mi tàkk na incha allah lepp alquran la lepp base bi alquran la lan tay boole lepp lu munta ñak la sarax ba dañuy xol ne nit ki ni la tollu ñu saraxé lola nga ni nga bëgg kay yow comme ni nga tollu nga jël lolu joxé ko lé li ngay bu dana yomb waaw ah, su ko defee nak ak lamuy and ak lamu ko war nang ko wara a defee ndax sarax bobu sax ben leen lu ci amna lo ci wara jang ñaan ko ñaan ci yalla nit ki ko kon bara yow so so fit agul ci li dina ko def ci fan yi wala mu wala mu guddu do wax lu mel mais léegi à peu près ci wàllum tukki noonu boo doon def bilan jàppale nga ci ñaata nit man nga noté ne cent personne wala deux cent personnes yoo xam ne du fit yi duma ma jàpp du jàpp ku ma ëpp fit ci àdduna mais nag du ma jàpp ku ma gën a ragal yàlla ci àdduna lu mu ci doon dama ciy teg sama ragal yàlla ba pare maa fi ëpp fit nag waaye nag lu mu ci doon dama ciy ànd ak ragal yàlla ak yàqin waaw lu may ñaan lu may ñaanal nit ki damay xam ne lii am naa yàqin lii dana am waaye lu ma yaakaar yaakaar ak lu ma ci am am yàqin du tax ma ne la dina am dañuy dama naan la kat nañ ñaan yàlla rek. ba macha mm-hmm. allah déggoo li ma la bu fekkoon ne fu ñuy wootee la. Mm-hmm. léegi te nit ñi dana woote ba sonn. kon daal di jël tegtal direct. acca bismillah mu leer ñu fi indi firnde bismillah bismillah bismillah. mbokk yi seetaan seen émission tegtal. ñuy dalal kii di sëñ baara Seck mu wax yu doy waar yi mu wax yépp ñuy xool ñu kii ko ngeen gis ne waxee na xam-xam li muy wax dugg na seen bopp te defe naa jaar na seen nopp des ci des ci yéen defe naa rombul jàll léegi comme li ñu def dañuy dem xool yi nga xam ne que comme tey gisaguñu woon gisagoo leen ñu dugg ci yenn ay ñoom hémorroïdes ak diabète ak yu mel noonu dafa am foo xam ne que fa la koy def ñu dem ñu dem xooli ci néeg bu set bu rafet bi bagage yi nekk fa ñu dem xoole ko mu woon bii mooy lii bii mooy lee lii ko tax a jóg ñu dem ñëw tegtal ñu gën ko yaatal xewal dëkk loraa ngi dëkk jërë ngeen jëf mbokk yi ci bi duggee fu yànji fii nii foo xam ne ko fi dugg rek xam ne fii moom bërëb bu xewale la dañ fi gis yu bari gis nañ tamit mais li may njëkkee mooy alxuraan dama gis kaamil alxuraan yu bari te mag ñi lu ci ëpp moom bu ñu doon digal nit ki dañuy ubbi fenn rek aaya ba dëppoo la ni sa saraxeel nangam ay kamil la laa gis foofu boo nu joxe tek kamil yu bari yi mom pour xey diko ko la wala pour saraxel la wala lu ko taxaju wa jóg kay Cheikh lu ci ëpp manam ñu jang la mais daf ci am yo xam yene jang jàng mu ci biir yi mom yu nuy jaay la hmm. parce que ñaari nit ki dafay ñew manam liko dal wala li nga xam moy tawatam wala ajom ànd ak alxuraan mag la jëndal ko jëndee indi ko dañ koy ubbi ay bu njëkk a tombeet dañuy xam ne kii daanaka foofu mbiram aju bu fekkee lu mu war a def la ñu wax ko ko bu fekkee lu mu war a bàyyi la def wax ko ko jàngal ko ci am nag saraxe boo noppee sarax ko mhm. incha allah bu dee tawar la bu dee aajo la bu mën na doon nag yàlla mën na sifaaru mi alxuraan waxoon mhm. naa la suñu baas lépp alxuraan la mhm. defee moo loolu loolu moo war a maa ngi gis ay xaatim ay bi xaatim bi ñu ngi ci bind xulonsu bi rabbil falaxit mhm. moo ci nekk ak xulonsu bi rabbil naasi mhm. xam nga ñu ngi gis wallaahu yaxsimuka mina naasi mi ngi ci mhm. gis nga bii tamit xaatim yi ñu ngi ci biir ñu bind ci ay tur Euh, tur yi doo mën daaw samin bara samin bii tamit am ngi xaatim mhm. ci mel noonu ak xasida waaw yooyu moom ay fas la yooyu sëñ di dafa digle woon ne ko ci war mhm. insha allah sa wàccuwaay mooy mooy mooy mhm. kon ay fas la yii moom nit ki da koy sangoo waaw kii xaatimu salaamun la moom la naan xaatimu salaamun salaamun jàmm la xawlan wax la min rabbi rahim borom bi yërëme uh-huh. soo defee mu xaw sa tey ni moo ko wër noonu uh-huh. kii moom gis nga ko wakun muhisan lana min sarisi hasadin uh-huh. wax sharri famin wasalaam yàlla kii mooy xam kii njibar waaw ki soxor borom bët bu aay borom làmmiñ bu aay li ma doon wax léegi nii gis kon mu ngi ci ay wu jóge ci jinne wala nit rek soo delloo ci xaatim bi insha allah yàlla mën nga suñ tubaa nee na kon yàlla na nga nekk muhisan lana dina musal min sarisi hasadin ci ay ku soxor ki min sarisi famin Uh-huh. ayu ayu bët ya, ya. ndax ayu gémmiñ wasari ayni ayu bët yàllaahu ya yoon wasari sihrin ayu njibari uh-huh. wasari khalq ak ayu kep maanaam bépp bindef uh-huh. wa ak jinne ma ayn si mol jinn ma jinnihim wasawaati summi ak yàlla ak sax jaan mom luy borom dangar lol lay mat baye fa dangar mo xam jaan la wala rab la wala wala lu la jam la wala lu meuna don a doon rek day eh, turi rawxaan ci rab lay dox samin daw samin bara samin saw samin sawa samin kooku ay ay kii la rawaxaan la yoo xamante ne bi ki rab jàpp ñaar ko juróom-ñaari rawaxaani rab ñoo am su defee yooyu ay muslaay la ci doon uh-huh. su ko defee kee asaabul kaafi la uh-huh. waaw da nga may gis enveloppe yi yii moom xanaa waa bitim réew yi ko tax a jóg. waaw dinañ ko jox sax ku nekk ci réew mi. Ah, ah. dinañ ko jox sax ku nekk ci réew mi. mais ku ñëw dëkk fu sori. wala doo mën a delloo gi demee noonu. Hmm. luñ préparé la ba pare ca la nga xam ne moom la nit ki ndax lu nekk am na numéro. Hmm. su segg xool nit ki lan lan fan lan war a jaar ci moom. Hmm. ak lan ko lan ko war a jox. ñu jox ñu numéro nangam su ko defee bu fekkee nit ñi lu luñ fi bari bari liggéey bi mën naa bañ a yàgg. Ah, ndax lenn lu ci nekk am bu ne rek bu dee bi bi faj cat def nañ ci mbiru cat kasse ko bii faj rab def nañ ci mbiru rab kasse ko bii def ubbeeku bii def muslaay benn bu ci nekk rek am na lu ci def ba noppi kasse ko loolu moo war même bu dee da nga am fajal cat même ki benn bi moo koy dindi waaw bu dee benn xaatim bu dee bi nga xam am na tur rek ñëpp mën nañ ko jëfandikoo mais li am nag moom hmm. borom tur bi rek moo koy mën a jëfandikoo moo ñëw macha allah léegi nag ñëw naa ci yi hmm. yaa ngi ni yéen bind ci hmm, ndox bi ndoxum sitee ko tax a jóg moom waaw kooku ndoxum siti la ko nit kiy jëlee. siti seer dafa bari ci nit ki kii. nit ñi nga koy jël dañ koy wax ni mu koy jëlee maanaam da koy jël. moo xam suba wala bëccëg wala ngoon benn yoon la koy jël par bés mais ki am ndoxum siti ba mu génn ci moom wax na la siti tawat la boo xam dafa yàgg ci nit mag ñi tuddee ko toppum sëdiya bari na koy am tawat jafe-jafe mais la ko sabab ndoxum siti la te ni mu amee ci sunguf noonu la amee ci reen mais lu ci nekk day ànd ak alxuraan ndax nit ndab bala nga cee def dara da koy sangu ba pare uh-huh. waaw ndab bala nga cee def dara da koy raxas ba pare soo ko raxasee ba pare nag ca ngay joog def bu fekkee siti la ñu la jëlal lii nii nga koy jële bu fekkee sunguf si la ñu ne la lii nii nga koy jële waaye fekk nag booba raxas nga li woon ci yaram bi ba pare uh-huh. kon kii yi moo jëm ci wàllu siti maa ngi gisaat bi yi mooy tax a su ko defee. waaw hémorroïde euh, hémorroïde waaw noonu la. boobu boobu boobu reenam mu ngi fële ci beneen dafa nekk benn affaire dafa nekk benn affaire suñu hémorroïde lii rek. waaw Cheikh ki xam am na hémorroïde bu mu sonal ko. ba mu koy indil moo xam seere la. wala mu koy indil buy dem toilette muy metti. wala mu koy génn ci ginnaaw. wala mooy boo xamante ne biiram. wala moo xamante ne bii koo xamante ne bii maanaam lu mu lekk lu mu tuuti tuuti ak du gaaw a rees. maanaam ci bu ñëwee ci garab gi da koy jël di mokk rek waaw bu ñëwee dana ko wax ni am na yoo xamante da koy booleeg ndox. am na yoo da koy booleeg meew am na yoo da koy booleeg café waaye heure yi mu koy jël ak ni mu koy jële macha allah mais nag loolu ki ñëw ah. wax ñu tawatam ñu mu demee ci moom ñu xool ko ba pare kooku lan koy jox wax ko moom ndax kenn ku nekk ak ni mu koy jëlee kenn ku nekk ak ni mu koy jëlee macha allah mhm. boobu mooy hémorroïde bii ah. euh, ndoxum siti la hémorroïde waaw am na tam ndoxum siti la mhm. ah. léegi jox bu ngóora yi ma xool ngóora macha allah waaw parce que wàllum télé sonal na ñu bëri de ci dëkk bari na ñu koy jàmbat surtout ñu dem ba ci ay xale yu ndaw léegi ñi naan fola ñi naan rab la ñi naan euh, kenn xamul lekk ya baaxul kenn xamul waaw lu ci nekk lii pour ngóoroo ko tax a jóg nu ko nit ki jëlee day jël di mbëq rek wala mu demee waaw seex ku nekk ñu ngi koy jël xam nga ki nga xamante ne bi dafa am rab boo ñëwee nga bëgg koo jox garab ne ko naanal kooku du gaaw wér mm. kon da ngay xool la ko fab la sabab ngó ñàkk ngóor ba pare mhm. su noppee nag nga doog a jël lii garab gi nekkoon jox fekk jox kumba ko ba sangu ba la newoon ci moom dañ ba pare mhm. nga doog ko jox garab gi nekkoon naana naane ko nii ak nii ak nii ak nii mais li ëpp nañ koy naane meew lañ koy booleel guddi lañ koy naan mhm. mais nag boo ko jëlee diir bu gàtt kàttan yàlla nga baaxam yàlla mën na def suukar bu baax incha allah diir bu gàtt maam nit ki di koy booleeg meew rek di naan waaw diir bu gàtt rek incha allah parce que comme ñun ñu la ko jox yaa ngi suñu numéro yaa xam nga fi ñu dëkk xam nga fi ñu la ko joxe tur baa ngi ci lépp adresse la fee moom loo ci gis dañ naan la soo ko jëlee daal fii fukki fan ak juróom loo ci yëg wooteel mm-hmm. incha allah wala nga ñëwaat fii leer na ballon ba macha allah waaw wax naa la léegi ne la ki nga xamante ne bii dafa amee kii. waaw ki amee hémorroïde. ñaare moom la moom ballonnement yi gën a yem. Mm-hmm. ballonnement day jàpp nit ki. Mm-hmm. ci fànn yëpp. ballonnement dina sonal góor jigéen yëpp. day sonal góor day sonal jigéen am na ñoo loo xamante ne soo piir sax duñ ko naan. Mm-hmm. buñ ko naanee sax day wal seen biir ba seen biir mu daal. lu tuuti buñ ko lekkee mu indi leen ay ballonnement. moo xam ñuy génne ngelaw wala ñuy géex ah. wala seen biir ne daal rek ah. su defee sungub bi boo ko xëyee naan ah. ci ngoon gi incha allah da koy defee day def ci kaas bi rek waaw koy naan am ñu koy naan rek ñu ko defee ñu ko def ci am na ñuy ndox am na ñuy boole waaw boobu day dox comme asthme mhm. nga xamante ne bi ñoo amee asma mhm. ci ci ci ci ci ñoom ci ñoom lay dox mhm. waaw benn ngi boo xam ne ci taf taf ah, ah. waaw pour asma waaw muy pour am yëpp moom moom te moom bi ñoo bokk lu ñuy dox ana boobu am bayre tubaab bi waaw macha allah ñu ngi ci kaw mhm. ñi nga xamante ni ñoo am ba ubbeeku bayre yi ñu ngi na leen bayre yi ñëwoon la mhm. daf boobu ubbiku bi ñoo nekk nii mhm. muslaay bi muy protection yi moo nekk nii mhm. ana boobu nga xam ne que bayra góor la jigéen bu bëgg góor ñu topp la oh. ak bi nga xam ne góor bu bëgg jigéen ñu topp la ana yooyu yëpp ñu ngi fi ñu ngi ci kaw te nit ki bu ñëwee dañ koy laaj turam wax naa la léegi ne dañuy jox turam ak turu yaayam ak aasam ñu peese ko xool kii fan nan mën a jaar pour defal ko loo xam ne lu ko ubbi la xam nga benn aaya ci alxuraan yàlla dafa wax yonte yàlla yusuf yonte yàlla euh, muusa alxaytu alayka mahabbatan minni aaya boobu boo demee ci bayre lu ci gaaw la te am nañ ci yoo xamante ne bi ñu ngi ko dëxañ ci biir yoo xamante ne bi ay bayra ci bayra rek lay dox eh, macha allah kii bi moom nga def ci sëñ Bara Seck mu rafet cabinet médical ah. city ballonnement ah, ah, insuffisance hémorroïde asthme fibrome cancer tension mhm. hernie mhm. muslaay ubbeeku bayra mhm. def ci numéro bi mu rafet trop noonu kon daal fu yaa fi sëñ Bara ah fi naa dugg nañ ci yin waroon yin fi gis yëpp daal wane nañ ko hémorroïde baa ngi gisoo yi mooy yi jëm bitim réew moom it waaw yooyu yëpp sa seen koy defee kàttan bi waaw. Ah, waa bitim réew tamit am na lu ñuy laaj ñoom nee na li leen xaw a sonal. Mhm. gars yi dañ leen di wax prix bitim réew boo wootee dañ la njëkk a wax. Mhm. foo jóge maanaam mu mel na ñoom bokkuñ ci réew mi. Ah, ankay ankay daf fi nag. daf mel ne prix bu gën a cher comme kam ñun suñu yëma yi nga xamante bu fekkee da ngay am koo jël si mën na bañ a métti ah. mais bu fekkee dañ koy posté ni nga ci boole na la a ah yaa koy fayal sa bopp ah. seen dafa mu ci loo xamante lu mu yoon boo xamee bi bitim réew yooyu kii jóge Pikine ñëw paas ñëw wax dëgg yàlla moo gëy mooy gën a oyofle ki nga xamante ne yow yaay taal sa oto dem poste ba envoyé ko ko ba noppi di ko topp ak say téléphone ba mu jot ci waaw bu fekkee ne ki nga xam ne day yónnee ñëw itam hmm. kooku mën na oyof man ñaar damay waxtaan ak yow ba pare ne soo soo ko mënta yónnee nag dañuy dem ba poste ba xam ñaata la nga yónnee ko ñu yónnee la ko. waaw kon kon loolu la quoi noonu la ñuy ah, allah defe naa fii lépp yànji na. Mm, xam lu ñu def dañuy dem fan toogoon. incha allah tàggoo askan yi waaye tàggoo bu dul tàggatoo. incha allah ndax dañ fi ñëwaat ndax fii ku fi ñëw xam ne daal foo xam ne ko tegtal war na di waru fi gëj. am na xam ne beneen doq la boo ñëwee ñu dugal la fa. beneen yoon ñu ñëwaat fa incha allah ñu dem tegtal ñu dem jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ñëw toogaat euh, gis ngeen néeg boobu gis ngeen boobu nga xam na que bayra tubaab a ngi noonu gis ngeen yi jëm ci wàllum ngóora gis ngeen yi jëm ci wàllum ndoxum cité ak ak fu rafet fi ko def mu yaan ji nga xam ne que nit ki lii leer na ne lu set la nga gis ci ay léppam mu leer na numéro nga ciy gis jëmmam nga ciy gis mu doon sëñ Baara Seck mu doon lu leer sëñ Baara liggéey bi fee moom xanaa fere nga fa lu bari ci xaalis de wala waaw ni mu toll ndax seex itam ah. dangai, dangai, dara da ngay da ngay da ngay da ngay def dara ah. so bëggee dara da ngay def dara ndax itam su fekkee né da ngay wo nit ñi itam surtout ngay jëm ci walu fajj ak ci walu ñaan alxuraan dafa yalla néna dafa téy dafa set té dafa bëgg lu set ana safatu min al iman kon motax fu nuy wo nit ñi rek fo far ko defal ben muy xéñ neex ben war ko def mu set ba noppi sel ndax itam lu taq moom jegewut yàlla jégewut ku jëm yàlla moo tax ki jëm jaam bi jëm ci yàlla waxuñu la nga am lu bees mais nag amal lu set parce que nit ñëpp mun ñu am lu bees mais li nga am nag fexeel mu set wecc su setee rek incha allah dana dal xel te itam dana dana dana dana xel dana ko nangu loolu moo waral itam lu mu doon itam dañuy jël itam financement def ko ci pour mu gën a mucc ayib mënoon nañu jël suñuy mbuus rek takk ci mais dañu jël suñuy ak ay kubéer ak ay xàmmeekaay ak loo xam ne ko ci taf dëkk bi dafa bari dafa bari dafa bari ay waaw te itam léeg-léeg di nit dikk ne lii garab gu jóge ci sëñ baara la fekk na noo amul signification bu boobaa kenn mën na bañ a xam mais bu fekkee ne am na sëñ du sëñ baara am na adresse sëñ baara am na lépp xanaa loolu nit di ko triser te boo ci amee xeliaar woo sëñ baara ci numéro bi bu fa jógee da lay wax ne la jóge bu fa jógee ne la jóge te lu ma lu fi jógee rek xam nañ ko fu mu jëm moo xam Amérique la jëm moo xam Canada la jëm moo xam France la jëm moo xam Allemagne la fu mu ci doon rek danañ xam kin koy jox ba bu àggee ci moom ñu xam lim lim jot ak ñu xam liñ ko jox ñun itam. jërëjëf sëñ Baara waxtu yoonu dab looy maa di joxaat numéro bi fin bi looy tàggoo. bu dul tàggatoo koy sant ak gërëm. mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di leen sant di leen ñaanal yàlla tawfeex euh, di ñaan xanaa rek dëkk bi ñu nekk di Zac Mbao yàlla def fi jàmm ak réew mi ñu nekk senegal ak réew yi ñu wër yépp ak réew yi jullit yépp Euh, ay nga xam mooy tàkk ci àdduna bi yëpp yal na yàlla fay ko yal yàlla defal ñu jàmm may xanaa sant rek euh, sunu waajuru jigéen nekk fële ci dëkk ba jolla macha allah ak ka nga xamante ne bii sunu genn wàll nga xam moo fa nekk yor daara naa la daara ja la fa nekk di jàng na téeméeri ndongo ñu loxo ñi nga xamante ni itam ñoo ni seetaan ñëpp ndax daaray al alquran la joo xamante ne bii dañ ko ubbil buntu ñëpp lépp loo xamante ne bii nit mën na ko te Nar ko jaayante diko def te yalla tax sha allah daara jama ma talal loxo daara ja nga ci dekk ba ma sha allah te itam amna ay nësër yu bari ndax la fa nek ëpp na téeméeri ndongo mhm. te itam ñepp ñu bëgg ñu mokal alquran ñepp ñu xam bëgg ñu xam seen diiné li li jël dom ci doom adama ndax dañ fay former ay doom adama ba ñu génn ak seen ay diplôme sha allah lolu moy sunu premier ñun lolu moy sunu itam ki li xëy lu ñu tënk la ak loolu yàlla baaxee ñu mu mu ne ci rek mais eh, liy bi mooy alxuraan jàngale alxuraan xam ne diine xam ne charia comme ni ko suñu waajur sàkkoo woon ci ñun naka noonu kon ñu ngi sant Ibrahima macha allah mu fa nekk sëñ Modou di sant itam ki nga xamante moom nga fekk mu itam mu yor liggéey bi eh, di soxna si ak sunu rakku papa bi nga xam ne moom itam macha allah moo yor beneen liggéey bi ci biti eh, di Baye Samba macha allah ak ñi fi bokkal nekk moo xam Abdou taal la Euh, sëñ Bakke sëñ Fallou Touré sëñ Jiili macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen sant. di sant waa koñ bi soxna si waaw soxna yi soxna yi soxna yi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm soxna Aja Ajaratu Fune Cissé mhm. ak Fatou Koy Diop macha allah. ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla tawfeex waaye di sant di ñaanal itam sama doom suñ fàllu ak Mouhamed mhm. ak maaw suñ Bas waaw Babacar macha allah ñu ngi koy sant moom fii loo fi gis ci kilim wala frigo frigo moo ko fi defar macha allah nekk ku baax mhm. nekk koo xamante ne bi ku bëgg lu baax ku yéene barab bi lu baax day ñëw rek xool ne taxawal sëñ bi fii war naa am nangam li daal di ñëw def ko macha allah ñu ngi koy sant di ko jërëjëf euh, waxtu weenu dam di jaajëfal tamit euh, sëñ Baara Seck maa ngi leen di joxat kan numéro bi di jaajeufal ki ma ñawal di Mamadou Ndiaye Diop nek ci cité Asegna Derklé numéro di 645 01 ñaw li di jaajeufal tamit ku ñu wax uh, Fat Seydi madame cham ak domam di Jeyna cham ak uh, Kolle cham ak uh, Aji Soxna ak Njanko Ndaw di jaajeufal équipe technique bi ñu andalon di Amadou Kebe ak eum ak Elas ndir madame Fall ci montage jëlal yoon bu mujjuma la jox numéro bi 77